diggante daaw ak ren ku ne xam na ni biñ la ko yokkalee bés bi yok nañ ci 1 milliard 372 250 soixante douze francs CFA augmentation bés bi mais tay bo jëlee monsieur le ministre comme niñ ko waxé dafa bari ay jafé jafé secteur bi nga yor ñu tuddu si lu melni poste poste boko ko

salaire bi ñu leen bi nga xam ñooy liggéey post boo ko bi kenn ku nekk cent cent mille francs par weer mënul couvrir li nga xamante ne mooy bis bi natal post wax ngeen seeni i procès ak seen i programme ngeen dañ koy def mu nekk banque postale mais monsieur le ministre bu leen fàtte ni même bu nekkee banque postale wax ngeen ne da ngeen di wàññi emploi yi nga xam ne mooy liggéey poste malgré que dañu ko jël pour politique ay nit ñoo fay liggéey ñu bare bari mais bu ngeen wàññi emploi yooyu noonu xam ngeen ni kon xëyu ndaw yi ak liggéey ëllëg bi ngeen di wax mënu leen ko attendre te aussi poste bu daanoo yéen yéen ko daanee benn boo demee France salaire u député salaire u ministre poste lay jaar boo demee Italie salaire u député poste lay jaar pourquoi mu leen jël salaire di ko jaarle foofu noonu loolu mooy yoon poste dafa nek bankas bo xamante man kuréel yi nga xam ne dafay jóge ci état sax ci poste la wara jaar mais loolu yëpp du am bankas bo nag bu fekkee dañu ko jël ngeen ñewal ko doole ngeen sacrifier ko ba ci vraiment nek lo xamanteni seen taxaway waron ko mëna xolal monsieur le ministre building administration bi nga xamanteni fan ya ginaaw ku ne xam na ni amna ay jafé jafé ba takkon adi ba nga xamanteni parce que ay programme yu bari ña won fofu nonu may laaj est-ce que effet ci li nga xamanteni moy liggéeyam monsieur le ministre boo jëlee si lu mel ni fil optique yi nga xamante ne maanaam moom ngeen waxoon ne projet la bëgg naa xam ñaata kilomètre ngeen si def ak fan ak fan ngeen ko def ndax day lépp loo xam ne lu am solo la ndax man fi ma dëkk nii rek tey au niveau de Maris amu ko depuis maanaam 6 mois maa ngi topp si ginnaaw Sonatel di Sonatel daw mun ma ko am monsieur le ministre Sonatel sàcc gi muy sàcc askan wi te yéen ngeen war a taxawal askan wi te féete ak Sonatel loolu war ngeen ko seetaat. parce que boo xoolee message yi muy envoyé nit ñi pour dalal temps yi bu fekkente ni da nga xaw a juum sax ku néew bés wéy dafay tàmbale maam di marqué loolu tamit ay problème la te damaa yaakaar ne daf la war a yónnee nee la bu fekkee ba nga dugg fenn nga jëf li wala nangam nangam en tout cas c'est vrai merci jërëjëf.